Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf gan gu kenn bëggul te boo nee ma ngay dem mu gën a jekkal ab toogaayam mooy coronavirus bi soleil national mi xëy di ñu wax ci yenn région ci Sénégal la jàngoro ji gën a laal teg na ci di ñu wax li ñu am démb ci ka coronavirus ci réew mi mu di xibaar bu mu nangoo ci waa ministère de la santé jële ko ci làmmiñu docteur Xemes Ngom Ndiaye ñeenti téeméer ak fanweer ak juróomi test la ñuy def bërki démb gis bi mbas mi duggee ci benn wér nañu téeméeri nit ak fanweer ak juróom-ñett ñooy faju libération nañu fi ñu war a njëkk a faj mooy ndakaaru diwaanu ndakaaru soxla na lool ak taxawu ci coronavirus bi rawatina ci cas communautaire yi fi mel ne fitt gumbar sànni ne ginnaaw Gueule Tapée Parcelles Assainies ak mbaaw amaat na beneen cas communautaire bu feeñ ca yëmbal bi coronavirus bi duggee ci réew mi ak léegi limub ñu corona ci ndakaaru romb na ñaari téeméeri cas Vox Populi ne ko ñaari téeméeri confiné ca yëmbal bu nuppi préfet ba jël na a Grand Yoff gox yooyu ay gox lañu yu matama yi gët gox yu jara surveiller ndax ay bomba nga fay tëdd di nelaw te bés bu ñu kalaatee musiba naaru lay lay doon ne yi ñu digle ngir moytu coronavirus bi jëfewuñu ko ca Parcelles Assainies ca Grand Yoff ñu bari ci askan wa seen yoon ci couvre-feu bi nañu mbaaw mi ngi léegi ci juróom-ñetti cas ndax am na yeneen ñeenti cas bés démb Dakar Sud am beneen cas Kër Masaar ak Yëmbal ak Touba fu ca nekk ab cas communautaire feeñ na fa démb cas communautaire bi feeñ démb ca Touba journal Source A nañu ab vigile la bu nekkoon marché Ocass juróom benn ci ay dëkkandoom moom vigile bi nañu leen ca guddi mbir yaa ngi fay gën doy waar ndax fukki cas ak ñaar feeñaat nañu fa démb léegi diwaanu Tamba mi ngi ci ñaar fukki cas coronavirus ak benn l'observateur nañu li yokk joote je ci guddi ñeenti fan la ñu ca teg yaayam génn àdduna ña ñëwoon ca dëj ba ñu ca bari fale leen coronavirus ba toppee Le Quotidien nañu urgence cas communautaire yi ñoo ngi gën di law ci réew mi coow li ne coob bay ci dund gi état bi war a séddale néew ji doole gi vox populi nañu ci wàll woowee mu di séddaleem dund gi nguur gi dooleel na gouverneur yi ngir ñu surveiller maire yi ba kenn ci ñoom du sàkkal pexe dund googee war a dem ci askan wi ministre Mansour Faye sàkku na ci ñoom ngir ñu wax préfet ak sous préfet nga xam ne ànduñu ak maire yi sax ci wàllu leen boole ci comité de distribution yi enquête dina kay coronavirus bi yëf yaa ngay bëgg a tas xaalis ba ca war a dem ni ñu koy doxalee moo waral coow li Sud Quotidien nañu société civile gi ci réew mi ñoom mayuñu dara état bu Sénégal pari fond covid gi lépp tege ci leeraange li leer ba leer mooy ministre de la pêche Alioune fa mu jëm nappkati réew mi jën amu fa ubbil la témoigné moom Alioune ministre pêche ak économie maritime ñaar fukki licence pêche ak juróom la jël jox koy Sinwaa groupement des ko dañoo jàpp ne jëf joojee napp gi ci réew mi la nar a rey ba mu dee ki ñu fi tàggee woon te deewul di ancien lutteur bii di booy Bambara jug na di ko weddil boppam ci xët mu njëkk l'observateur la xëy di ko fa weddee nee na ñi ko tàggee te deewul ñoom ñëpp la ñu war a dajale jël leen yóbbu kaso booy Bambara ne bés bu faatoo bu kenn jaar këram naan yaa ngi koy rendre hommage ki muy sant ak di ko gërëm moom Boy Bambara moo di mbër mii di Triple S doomi Double Less mu di Balla Gaye ndax nee na bu amee lu muy soow bés bi tey fukki fan ak juróom ñaar ci weeru avril 2020 ministère de la santé et sociale jot na résultat test yi ñu def ci ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaari test juróom-ñaar ñoo ñëw positif bon dëkk ñoo am jàngoro ji ci juróom-ñaar yooyu juróomi cas contact yu ñu doon suivre la ñaar yi nekk ay cas mooy ñu am jàngoro ji te kenn xamul fu ñu ko jëlee mën nañ leen yëgal tam ne ñeenti patient yu newoon hôpital wér nañ ci bésu tey bi danañ leen génne ñi nekk hôpital yu leen di faj ñi ngi yëg tan bu baax ba mu commencé ba léegi ñetti téeméer ak ñeent fukki ñaar ak ñaar yu kaa ñu jot fii ci Sénégal man ko déclaré si ñetti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar yooyu téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett wér nañ ci ñaar génn nañ ci àdduna kenn évacué nañ ko bon nag ci suñu hôpitaux yi tey ñu ngi fay faj téeméer ak ñeent fukk ak benn patient ñuy wax ne bésu tey bi mën nañ wax ne lu bees lu ñu jaaxal taxaw na su suñu xeex bi contre coronavirus ñu war leen ko yeggee ku nekk ci ñun war na taxaw am taxawaay bu bees ci jaaxle bu bees boobu ñu am li ñuy wax cas importé muy kaa bu jógee bitim réew mën nañ wax ne téye nañ ko bi ñu tëjee frontières yi li ñuy wax cas contact suivi mën nañ wax ne maîtriser nañ ko parce que képp ko am danañu la ber man la toppatoo ba doo faagagal kenn mais nag tey li ñu jaaxal te jaaxal ñu dëgg mooy li ñuy wax cas communautaire mooy loo xamante ne xamuñ fu mu nekk mu ñuy yot ñun ñépp te man ñu jàpp ci bésu tey bi am nañ ci fanweer fanweeru cas communautaire génn na Louga génn Saint-Louis génn Ziguinchor génn Touba génn mbuur génn cees gën Kër Massar gën a Diamniadio gën a Rufisque gën a Pikine gën a Thiaroye Gare gën a Yeumbeul Sud gën a Mbao gën a Médina gën Fass Colobane gën Plateau gën Golf Sud gën a Wakhinane Nimzatt gën a Ndiarème Limamoulaye gën génn Mermoz génn Parcelles Assainies génn Pikine Ouest génn Hann Bel-Air génn Jëppal bon nag bu ngeen seetloo mi ngi ñuy wër ndomb situation bu bees boobu nag képp kuy père de famille képp kuy leader d'opinion war nga taxaw pour que cas communautaire boobu ñu taxaw si mu génn réew mi ministère la santé et de l'action sociale mi ngi digle pour que ñu mën a takk masque yi bu baax surtout ñi dem si bërëbu yi xamante ne liggéey dafay am comme marché yi comme transport en comme yi comme lieu public yi may wax ne maa ngi remercier bu baax a baax taskatu xabaar yi di remercier administration territoriale si turu personnel de santé yépp ñu ngi leen di remercier di wax ne nañu taxaw bu baax pour respecter consignes yépp pour que Covid 19 bi mën a génne suñum réew bi ma paree loolu nag dama bëgg introduir la situation du jour ce vendredi 17 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu des examens virologiques suivants. Sur 287 tests réalisés, 7 sont revenus positifs. Il s'agit de 5 cas contacts suivis par nos services et issus de la transmission communautaire. Quatre patients hospitalisés sont déclarés guéris ce jour. Ils sortiront d'hospitalisation dans la journée. L'état de de nos patients hospitalisés est stable. À ce jour, 342 cas ont été déclarés positifs, dont 198 guéris, 2 décédés, 1 évacué. Par conséquent, nous avons 141 patients sous traitement. C'est le lieu de reconnaître qu'une nouvelle situation se présente dans notre riposte face au Covid-19. Chacun et chacune est par l'accroissement des Les cas importés ont été maîtrisés. Les cas contacts sont bien localisés et mis en quarantaine. Cependant, il faut admettre que les cas communautaires sont préoccupants. À ce jour, 30 cas communautaires ont été décelés et ont ceinturé notre pays en s'installant dans les communes comme à Louga, dans la commune de Saint-Louis, à la commune de Ziguinchor, à Touba, à Mbour, à Yeumbeul Sud, à Mbao, à la Médina, à Gueule Tapée, Fass, Colobane, au Plateau, à Golfe Sud. a Wakhinane à Ndiarème Limamoulaye à Yoff à Mermoz aux Parcelles Assainies à Pikine Ouest dans la commune de Hann bel à Derklé Dieuppeul et j'en passe face à cette menace de plus en plus accentuée et pernicieuse chaque chef de famille chaque responsable d'une dynamique communautaire leader d'opinion, chef religieux, président d'ASC, doit se lever et barrer la route au Covid-19. À cet effet, le ministère la Santé et de sociale recommande fortement le port du masque, en particulier dans les marchés, dans les transports en commun et autres lieux Je tiens à la presse pour son engagement dans la lutte. Je note avec satisfaction l'excellent travail de l'administration territoriale, des forces de défense et de sécurité. Et au nom de santé, je remercie tous les Sénégalaises et tous les et vous recommande le respect scrupuleux des consignes pour vaincre le Covid-19. situation